di wax ni comme ni nga ko waxee alhamdulilah luy di ndax at mu nekk deneen ñëw nekk ci ginnaaw def li ñuy def ah, indi jàpp ci liggéey bi di ko xalif bi bëggee di ko ziar di ko ñaanal di ñaan yàlla naal yi mu naal li mu sumb yëpp yàlla ko yàlla yeggale ak sagoom yàlla yàggal ko fi loolu mu ànd wér muy suñu xalif di suñu sac di suñu tiitar muy sëriñ Babacar Sy bu sëñ Mansour ibnu sëñ Mansour ñu koy ziar bu baax a baax di ziar aussi suñu wéjur suñu sëriñ suñu kilifa ki mu denk liggéey bi di sëriñ Babacar Sy Abdou di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool yàgg ñoo gunge ci liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko teg ci loxoom lii nag dañ ciy dañ ci xëy na xalif bi daf ñu cee yéene rek moo tax mu ngi ciy soññ waaye kenn ku ne war nga koo taxawoo war nga koo saxoo war nga dëkk ci di ko def ndaxte lii mooy dëgg fii mooy këru dëgg tëraay bi mooy tëraayu dëgg ndaxte mooy tëraay bi mujj ba faaw donc ku ñu ñaax pour nga ñëw defaral ko rafetal ko taaral ko kooku vraiment dañ laa yéene yiw ak tiyaabo lii nag ñu ngi ko waxee at mu ne ñu ànd ci bokk ci taxaw ci dugg ci réer ci mbooloo mi xamna da ngay na xarañ mu du fexe ba génn ñu ci mbolo mi waye yag nañ ko def té ñaan yalla ya ko fekk ya ko tal ya ko mën ndaxte bu ñuy wajal lu toll ni gàmm bu ne gam ñepp xel yépp dem ci tuyaawan fi di xalxuus nga xamanteni borom leer cheikh suñu kilifa suñu suñu suñu way suñu titer serigne maoudou malik si radiyallahu taala anhu suñu mam moom moko ko ah ñi am yaakaar ñepp ci kër gi ku ci dëddu di ñaan ñu indi la fii jébbal la sa boroom donc bu nu ñu ne waxee nañ ko defar ba nga xamante ni gàmm ku ñëw di ziyaare doo am jafe-jafe dëgg du la jam ñax du la bloqué loolu dañ cee war a taxaw ndaxte loolu mooy Tiwaawan lool mooy sagu Tiwaawan. un dernier message par rapport ak Tiwaawan comportement bi naka lañ wax ak ay gan yi nga xamante ni ñëw fii xam nga damay wax ni dëkk Tiwaawan rek chance la. ndax koo xamante ni bu ne ki tax ñu sàkk la. muy Seydina Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy defal anniversaire. yow nga dëkk-dëkk boo xamante ni fan koy defaree anniversaire di nga ci mën a joxe cadeau yaakaar naa ni ku jox cadeau anniversaire suñu sang sangu sang yi sa cadeau boobu yaakaar naa ni doo ko perte moo tax dëkk Tivaouane rek chance la ñu koy gërëmee suñu kilifa ki nga xamante ni moo ñu wan yoon bi mu muy suñu maam Malick Sy radiyallahu taala anhu et di wax waa dëkk bi nii gan yomb naa muñal nañu ubbi néeg nañu ubbi xol yi nañu ubbi kër yi nañu ubbi lépp ñetti fan ñu teeru gan ñi ba ku ñëw jële fi loo xamante ni mooy bànneex jële fi loo xam mooy ñaan mooy yiw mooy tiyaaba ñu ñëw ak jàmm dellu ak jàmm yàlla def ci sutura ba ñu def gàmm goo xamante ni di dina mucc ayib incha allah. donc euh, tey dañu fi ñëw teewe si fi en tant que ndaw en tant que soppe en tant que taalibe. ñew ci turu aussi monsieur le préfet du département de Tivaouane jëfe ndigal bi nga xamante ni général joxé nako pour ñu ñew nettoyer bay fi nga xamante ni mooy cimetière Xalxuusi mu mel ni comme ni nga ko waxee ji gis nañ la fi nga ñew and ak talibé yi ana yan mesure d'accompagnement accompagnement ngeen jëloon au niveau du préfet pour mën accompagner ndaw ñu lu jëm ci matériel wala da ngeen ñew rek pour participer ci liggéey non seulement nous sommes en ressources humaines parce que les volontaires du programme ils sont au nombre de 26 ils sont affectés au service départemental de la jeunesse accompagnés aussi de quelques mouvements associatifs qui nga le président du conseil départemental de la jeunesse Moka andi donc bu loolu aussi comme Talibé, yëpp il ah, andi a du matériel parce que andi des ay fourches une quarantaine andi a aussi des poubelles ah andi a aussi des li nga xamante a ay pelle

plus particulièrement la cible jeune bi nga xamante yalla dogal na maay seen njaatige moy nañu mobiliser wu descendre sur le terrain and ak service départementaux yi nga xamante ñom dañ fi nek comme par exemple li nga xamante moy district bi ci côté santé li nga xamante aussi tamit moy brigade service d'hygiène ak ñi nga xamante c'est des associations yu fi nekk comme COSCAS ak ñenen ñu mëna sétal dëkk bi nettoyer dëkk bi jël matuwaay yo xamante dinañu permettre suñu mbokk talibé bu ñu ñëw ñu mën leen dalal dans des conditions yo xamante ni dinañ mën a nekk à l'aise pour ñu mëna féké fekkee bi ci jamm mëna gamu gamu ci jamm pare ci ak alhamdoulillah rabil alamin lolu dal moy message bi nga xamante ni na ko lancer à l'ensemble de la population tiawanoise mais plus particulièrement à la cible jeune. xal euh, Xalxus dafa nekk bërepp bo xamni kum ci dor rek am nga mbokk mu fi teud wala wayjuru fi teud wala mam ji fi teud wala rawati rawatina nak bi nga xamé ni Seydi Hadji Malick ci bopam moko joxoñal bopam ni fi kun fi denc di nga texé kon fi ñew fi bay fi wajal ëlëk yalla na yeex fokk naan dafa war ci bëpp julli kon ñun suñu téway fi dañ koy santé yalla di ñaan yalla diko ko fekk ay at yu bare bare bare bare bare ndax nak ban juddo ba ma sha allah yag nañu fekk mbale xalxuus waaw mu doon am na xam sax suba gi la daan doon amna yo yoo xam ne daan na dem sax ba ay côté midi 13h ñu arrêté comme ni rek mais sha allah ñu ngi koy fatlikou tay nak wax deug yalla ñew fi dafa war ndax ñun doomu tiyan lañu fi la tiyan moy suñu lepp kon bu nu waté mbalem khalkhus ñun dañoo wara a suñu yité yépp man amona ay programme de mais dama né mbalem yi duma ko tardé parce que yiw ak barké bi ñepp bëgg man mom la bëgg benen bi dess sama waajur bi ma jur mu ngi tëdd fii samay maam ñu ngi tëdd fii sama mag bu ma bokkal ndey ak mu ngi tëdd fii kon ñun fii ñi fi ñëw ñëpp man damay jàpp ni man lañ fi ñëwal waaye jàpp naa ne ku ci nekk rek ñëw nga te yàlla tax kon loolu mooy sunu tànk fii te ñaan nañ yàlla di ko def ay at yu bari incha allah. mu mel ni buñ jugee fii dañuy waajal champ de dina am ay nettoyage au sein des quartiers pour préparer ndaw ñi en tant que député waa Tivaouane Fall la ban message ngay lancer les jeunes. waaw moom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ko dimanche incha allah waaye nag dafa dem ba fan yi jamono yii ñu nekk boo xe boo bàyyee ba dimanche ba nga xëy boo demee doo fa fekk dara ndax man bii paase nii damay romb guddi gi rek yam ci nit ñi ñu commencé man it ma ñëw def comme ñoom waaye bi yoon man décision bi ma jël mooy sam di ci guddi ci kàttanu yàlla man dinaa jéem a dem jéem a def lama fa mën a def bay fa la ma fa mën a bay ni fa la ma fa mën a ton parce que xam xaaree ba suba ñi dëkkul Tiwaawan ñooy ñëw bay ko mu jeex te nag wax dëgg yàlla yiw moom comme ni ma koy waxee ñëpp a koy wut ñëpp a ko bëgg kon maa ngi woo ñëpp que ni bu incha allahu dimanche ak jàmm sunu mbokku murid yeeg sunu mbokku tijaan yeeg sunu mbokku laayeen xaadir ñëpp nañ ñëw ci mbalem course mi ak waa Ndiassane loolu daal euh, appel bu may lancé la parce que guddi yonent bi lu ci waaye def doo ko réccu ñun bi ñuy ñëw fii daaw am na fu toll woon ñu ñëw ren bi ñu ñëwee gis am na faneen fu nu nekkaat te xam nañ ni déwén ci kàttanu yàlla su suñu ñëwaatee yàlla mën nañoo faneen fu gën a kawee ñun ak ñi fi teew ñëpp kon dañuy sant yàlla di gërëm ñëpp vraiment di leen ñaanal jàmm di ñaan guddi gàmm gi yàlla def ci jàmm yàlla def xol yi xol yëpp ànd yàlla def lépp lu ci nit bëgg te mu jafe la yàlla sottal ko ci barki Seydina Muhammad incha allah ndax Seydi Hadji Malick lu ko waay defar rek lu ko waay defar rek moom yàlla dina la ko fay bu soobee yàlla ñun danoo ñëw nag en tant comme ni waxee en tant que talibé waaw ñëw en tant que njaboot wante sax mun na ñëw en tant que conseiller municipal. parce que tamit ñu bëri xamuñu prérogative maire ñoo ko war di gérer te allah mais nag ñu ñëw en tant njaboot. waaw loolu moo fi indi vraiment loolu mooy sunu ay tànk quoi ñëw aussi pour dagaan si yu comme ñëpp rek waaw loolu mooy loolu mooy solo si quoi loolu moo tax gis def deux trois dimanches mais cette fois ci il n'est même encore deux heures xalé yi wa awon genn nañ lepp li nga xamanteni mo nekkone wax ci biir ak ci biti genn nañ waaw lolu moy wone rek vraiment tay mom mëna wax ni awon en miniature manam mm. awon ñepp ñofi fi dajé comme niko gor gi dañ waxé rek da ngeen and and cause manam amul gewel amul serer amul jola amul nangam parce que tamit ñi fi teud aussi ken xamul ko fi teud ni ki nangam wal nang non non ñum ñepp ñew rek tay mom tay lañ gëm li wax na euh, la tabaadu wala tahasadu wala taqatahu wa kunu xibaadallah ixwaana mhm. waaw amul bañante amul dara parce que ñi fi tëdd ñëpp ay ay xam tey buñ moo leen seen bopp ñooy jugal dama seen bopp maintenant nag am na ñoo xam nag yàlla dogal na chaque vendredi ñu ngi fiy ñëw mhm. mais am na ñoo xam ne amaana at bi bu du woon lii xëy na sax duñ fi jaaraat mhm. te bu la mayee sutura boobu aussi ñu may la occasion boo mën a ñëwee aussi euh, te macha am na nag bàkkaar yoo xam ni dara mënu ko far du astaghfirullah du seeti mbokk dara déedéet dugg si ay sëg rek moo la koy moo koy far kon buñ la mayee occasion boobu yiw bii nag macha allah kilifa yi aussi tamit danoo am beneen ouverture bi ñuy doxalee léegi macha allah dañ koy sant njaboot gi bëgg ñu boole ci yiw bi ndax at tarbiyatu bi himmati wal xaali dafa am solo ñun nag am na am nañ sens sens bi na am mooy bu njëkk euh, taalibe tijaan yi dañu xawoon a jàpp ni moom ku sa xas ba jël ba yor sa kurus tusngalu yooyu lañ jàppoon ni mooy maye yiw yi quoi ah, amul liggéeyal sëriñ parce que dam la wuñu tool dem la wuñu fenn mais léegi nag dafa am lu ma gis ni noonu commencé di copier lu bëri suñu mbokku murid yi waaw mooy lan di nangoo tar maanaam jëf jël ni nga waxee jëf jël da ngay gis ni ñëpp dañuy ñëw ñak ñak jëriñu jëf jël ba paré tamit et eh, vraiment suñu bop lañ koy defal parce que sëriñ si amana mun naa am nañ fi njabot mais ñun ñoo fi ëpp la njabot ku nekk am nga fi yaay am nga fi papa am nga fi xarit am nga fi dëkkandoo bo xamni ne lañ ko sul kon mën la mayee occasion bo aussi nga ñëw bu ko doon ñu remercier aussi tamit wa AST manam suñu mbokk wa kër Cheikh Marouba parce que dañu ñëw jappé mbir mi jàppee na comme seen bop war nañu Tiwaawan vraiment ñi fi tëdd fii fii amul murit fi tëdd amul tiijaan amul dara amul géwél amul séeréer non non ay doomu jullit ñoo fi tëdd ñu am si ñoom yaakaar am si xabru bi yaakaar man nag ma am ci sens yaakaar naa ne Seydi Hadji Malick bokk na si ñi tax mu garanti ko sama maam moo bint si si la bokk wante am nañ tamit ñu ni maam sayer kodd lu ci xew daal mooy daal macha allah sëg yun garanti la yàlla boo nañ nag ñu bokk si moom si njaboot deret waaye yàlla nañ bokk si njabootu pas-pas loolu la ñuy ñaan loolu vraiment di ci di loolu waaw. waaw bu weesoo loolu bientôt ñu commencé li nga xam te ni moom mooy gudd ni ñu setalee fii koñ yi ñu war koo set setal accueillir gan yi ban message ngay wax waa Tivaouane rawatina jeunes yi waaw léegi xam nga li ñuy wax foofu mooy bii neex na lool vraiment tey amul coloration pour amul dara ñëpp ñëw nañ ak sa yéene ba sax boo xoolee sax bëri na sax lu fi des si ay teraanga yu nit ñi indiwoon woon pour yóbbuwaat. Mhm. ñu ngi waxaat gars yi aussi na leen lii ay sunu ay woy dawlu la ñu defar ko. wante bii di ñëw dafa am gan gu foor gu ñu war a teeru muy Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu bindu ñu nag te tamit an nazafatu min al imaani dafa bokk si jaamu yàlla kon ñu ngi woo population Tivaouane bi yëpp boo ko defee ñoom ñëpp ñu ñëw ëpp bu bu bu bu burdu bi tegloo ku nekk boo ko defee sa koñ rek yaakaar naan jarul sax ñuy woo ñi fi ñëw fii tey tey ku nekk am na benn leadership boo xam ne moom ngay indaale mais bu ko nekk defee sa koñ rek après mu li may wax rek naan suñu borom li ko mooy penc mu penc mi nag pour mu jag foog foog néeg yi jag ku sa néeg jag sa ëtti jag rek sa penc yi jag mais na ku nekk jàppee noonu rek nan ku nekk tàmbalee sa kër tàmbalee sa penc bu ko ñëpp defee après dañ naan kat Tivaouane gis nañ fi ren macha allah benn xeet goo xam ne mi ngi noonu bon kon ñi ngi ñi ngi incité jeunes yëpp dana wax ne Tivaouane nii la chaque jour dama koy wax gis nga ñu baal ma sama mbokku sama mbokku waa waa Bambey yebu ma leen de mais góorgóorlu nañ ba tey boo demee Bambey am nañ université am nañ école des cadres ruraux la lan moo leen ko may ay ay doomu Bambey yu taxaw rey seen bopp ba lu baax ñu yóbbu ko foofu ñun aussi doomu mbañum kanam borom moo koy fajal boppam ñun waa Tivaouane dafa am beneen taxawaay bi ñu war a taxawee lépp nag si côté yëpp te lii aussi daf ci bokk li ñuy defee détermination nii mais nag am na lu ma xaw a nag santir léegi nag mooy ñeenti dee yi dafa am solo le désir de le faire la décision de de de de passer à à la chose maanaam gis naa fi désir gis naa fi décision de faire gis naa fi détermination mais am na lu ñu manqué mooy discipline. Mhm. ñu loolu tamit nañ si bàyyi xel mooy discipline. Mhm. vraiment danoo manqué discipline. du njaboot gi yëpp nag mais am na njaboot xam danoo manqué discipline parce que bu ñu ñëwee lu mu dugg rek indi si pëccoxoo. sëriñ Cheikh Tidiane wax si dafa daal pëccoxoo baaxul. na mhm. loolu aussi tamit dafa laaj organisation. organisation nag bis bu ñu ko deful dinañ perte lu bëree bëree bëri sëriñ Cheikh Tidiane si wax naan naan naan naan fen bu ñu sax bu fekkee dëgg bu bu tasaaroo da koy écrasé waaw kon organisation soo lépp xaj comme ni nga waxee ni ñu ngi ñaan Tivaouane yëpp ak Tivaouane naan organisé ku nekk la nga def nii tey ngir amaana am na ñu def ngir yàlla bëgg sëñ bi gis leen wala nangam baax na lool bëgg ñu gis la fa mais ku nekk li nga def nii boo ko initié sa quartier yaakaar naa ni 82 quartier Tivaouane yëpp du jar sax mairie dafa jaar loolu moom